asalaamaaleykum euh, mbokku Sénégal mbokku àdduna ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen euh, ziar man la docteur Ahmed Diallo je suis le coordonnateur de PASTEF Ndiafat dans le département de Kaolack mais aussi man maa nekk le commissaire chargé des affaires étrangères et du panafricanisme de PASTEF les patriotes au niveau national euh, ñu am mbégte lool nag di jàkkaarloo yéen waxtaan ak yéen ci li nga xamante maanaam moom moo ñu yëkkati fan yi moom mooy élection législative euh, que ça soit au niveau national ak au niveau départemental ndaxte xam ngeen Pastef dugg na ci dugg ci aussi ak dugg bu mucc ayib démb gis nañ démarrage campagne bi à travers notre président euh, le premier ministre Ousmane Sonko nga xamante ni il données le temps patriote yëpp topp ko ñu investir le Sénégal depuis démb élection yi nag dafa nekk ay yu ama a solo ci jamono buñ toll nii enjeu élection yi foo ko natt rek weesu na ko ndaxte Sénégal dafa toll ci benn diggante boo xamante ni dafa laaj jubbanti ginnaaw bu ñu bëggee jubal bu ñu bëggee jub il faut que ñu jubbanti mbir yi suñ bëggee jubbanti mbir yi nag il faut que véritablement élection yi ñu dëgmal moom mooy assemblée nationale bi nii ñu jox Pastef une une majorité écrasante loolu ci nan lañ koy defee xam nañ ne ci élection yi nga xam ne moom moo jàll ci présidentielles yi Pastef moom moo ko gagné ci 54 pour cent sénégalais yi exprimé wu jox seen volonté le président Bassirou Diomaye fay ak le président du parti Pastef muy Ousmane Sonko jox leen seen volonté parce que sénégalais yi dañoo xiifoon dañoo maroon dañoo rafle woon ngir Sénégal am benn rupture rupture systémique rupture systémique boobu nag commencé nañ di ko di ko di di ko opérationnaliser mais lii tax dëgg dëgg dëgg dëgg ñu mettre ko en œuvre moom mooy ñoom assemblée boo xamante ni Pastef lu mu am loola lu mu bëgg dina ko fa mën a dogal ci wàllu ay loi ak ci lépp loo xamante maanaam moom mooy lu jëm ci wàllu réglementation lu jëm ci wàllu législatif comme ni ñu koy waxee su ko defee nag li ñu bëgg moom mooy sénégalais yi ñu permettre ba ba ñu am ko su ko defee vision 2050 bi nga xamante ne fan yee ci ginnaaw Sénégal présenté na ko ci àdduna bi foofu ca sikkat ñu mën koo matérialiser vision boobu noonu nag du xëy na euh, delloo Sénégal fi mu war a nekk mais delloo Sénégal ci cëslaayam ba pare mais yëkkati Sénégal suñuy suñu suñu suñu maanaam suñu gisin ci fii ak euh, li nga xam moom mooy ay ñaari fukki at ak juróom ci kanam ci naka ci wàllu li nga xam moom mooy changer économie dëkk bi jëm ci wàllu industrialisation xam nañ ne Kaolack boo xoolee le département de Kaolack c'est c'est le centre du bassin arachidier donc agriculture da ci ama ama am solo te gëm naa ne suñuy candidats yi suñu demee assemblée nationale dinañ ko fa défendre li jëm ki xam moom mooy les services sociaux de base mu mel ni ki xam moom mooy électrification boo demee ci àll bi soxla nañ ko bu baax a baax ndax seen entreprise ak seen kër yi ak seen écoles yi ak seen hôpitaux yi bu waree fonctionner service de sociaux de base yooyu il ñu am ko li jëm ci wàllu assainissement loolu Kaolack dañoo war am cadre de vie bu bu ngir ñun Kaolack waaye ñu mën ci dund mais suñuy doom ak suñu njaboot également ñu mën a nekk ci milieu bu am milieu bu am solo la donc lépp soo ko defee moom mooy suñu ressources yi nga xam ne aussi am nañ ko fi tey ak yeneen entreprise yoo xam ne ñu ngi fi leen ñu mel ni les salins du Sine Saloum nga xam ne xorom si également am na impact bu muy def dans certaines communes Ndiaffate ak Ndiédiène ñu mën a xool naka la ñuy solutionner problème yooyu noonu bu fekkee entreprise bi dafa war a def du social mu yokk social bu fekkee également étude impact environnemental ak yeneen dañ ko war a def ci dans le cadre de l'atténuation wala de la mitigation également ñu def ko donc enjeu yooyu noonu tey ak yeneen yoo xamante ne tey delloo Sénégal ci jub bi surtout ñu fexe bi li nga xamante xewoon na ko fii ñu mën koo diagnostiquer ñi nga xamante ne également dañoo làqoon suñu alal ñu mën koo jël mais surtout ñi nga xam ne ñu ngi jongante fii ci département bu Kaolack moom mooy ñi nga xam ne bëgguma leen tudd te ñu def fi ay njombe yu bare bëri surtout njaafat nga xam ne suñu suuf si yëpp jaay nañ ko suñu ressources yi lépp caxat caxate nañ ko ñu fexe ba soxna soosu noonu du mun a am malaanu kiiraay parce que dafa bëgg a buruxlu ba am malaanu kiiraay su amee malaanu kiiraay comme ñun dañoo respecté nit fonk ko ak ay yëlleefam ak ay àqam duñ ko mun a topp mais ngelawaay buñ ko may ba mu yegg foofu nañ fexe ba balaa le 17 fekk moom du ñemee sax génn ci mbedd yi naan den campagne le 17 ñu gañe ko gañe bu leer nañ lépp loo xamante ne doxoon na suñu diggante diggante ak moom ak population yi mu mën ko delloo ndaxte loolu ci jub jubal juban bi la bokk kon waa Kaolack ñu ngi leen di woo yéen ñëpp jeunesse bi surtout ñu gën a gëm suñu bopp gën a farlu parce que projet bii nii pour ñu matérialiser ko sacrifier nañ lu bëri mais lii nii benn étape la rek ci fi nga xam ne foofu la ñu war a jëm. te comme dañ koy delloo encore ci cëslaa bi moom mooy le président Ousmane Sonko suñu xoolee ci nu muy doxalee ak ci ay jëfam ak ci ay kàddoom xam nañ dëgg-dëgg élection bii nii da ciy dem ba jeex kon ñun aussi buñ toog nañ dem ba jeex. te wóor na ma ne dinañ ko gagné mais objectif bi surtout moom mooy ñu gagné ko avec la manière avec majorité écrasante kon waa Kaolack ñu ngi leen di gërëm di sant di leen wax nag combat bi commencé na. te élection yi tamit campagne bi door na chaque jour dinañ ñëw ci yéen dinañ waxtaan ak yéen dinañ leen déglu surtout tamit ndaxte ñun sénégalais lañ fi nekkal c'est le bas peuple moom moo ñu élire donc ñoom la ñuy déglu ngir ëllëg lépp loo xamante ne moom moo nekkoon seen i jafe-jafe ñun ñu mën ci taxaw su ko defee Sénégal jëm kanam su ko defee Pastef également vision bi mu am mu mën ko metre en œuvre jërë ngeen jëf merci